président Macky Sall dama gëm ni bokk nañ ci ñi ko gën a baare la route tey muy F24 boobu noonu. parce que Ousmane Sonko sax bi nga xam ne mooy kii bi ci F24 bi la bokk. dëgg la F24 nekkul plateforme boo xam ni ay ténor ay voilà ay ténor la daal di regrouper mm-hmm. euh, waa F24 euh, ñoom ñi ki démb lañ dajale woon ngir def li nga xam moom mooy ab conférence de presse ngir waxtaan ak askanu waa Sénégal ca la nga xam ne euh, bëgg nañ koo sóobuwaat à nouveau ginnaaw ba ñu gañewee une ginnaaw ba ñu une partie ca la nga xam ne doon nañ ko xeex mooy ci wàllum troisième candidature président Macky Sall renoncé na nee na du def du déposé waat euh, candidature maanaam bàyyi na wàllum troisième mandat bi nga xam ne nit ñi ñu ngi doon ko euh, wax di ko ngawti ngawti alors que moom am personne waxagu ci woon sax mais ay démarches mooy wane que ni euh, kii nii am na lu bëgg ñoom nañu taxawoon pour barrer la route ki nga xam mooy président Macky Sall tey nag soulever war nañ beneen xeex mooy ci wàllum élection yu inclusive waaye tamit libération des détenus politiques ak tamit wàllu démocratie mu daal di ñoŋaat bu baax a baax moo waral sax ñu daal di woote. ndiki euh, le 21 juillet foofu noonu ca place de la nation euh, ndiki vendredi est-ce que loolu itamit ànd parce que euh, jamono ji préfet ak gouverneur ñoom seen yaram dafa xaw a tàng ci lépp loo xam ni opposition bi daf koy daf koy woote Kébé. bon xam nga tey ñun li ñu li ñu mën a wax rek mooy. Mhm. dañu nekk dans un pays de démocratie maanaam pays boo xam ne tey dañuy doxal ay loi mhm. tey préfet gouverneur ñoom. waruñu fi nekkal ma Samba waruñu fi nekkal ma Demba mais mhm. askanu Sénégal tey lañ fa war a nekkal tey lépp lu ñuy jël di dogal gu ñuy jël di ko xaatim ak euh, di tere lu mënti doon mhm. war na ñu ñu ñu ñu teg ko ci ay base yu légal base yu leer nañ tey kenn mënul comprendre tey préfet wala gouverneur mhm. bu fekkente ni waa benn bokk yaakaar lañu ñoom lu leen neex mën nañu def mën nañu xeex mën nañu def lu ne après anyway mais su fekkee tey tey euh, F24 la wala yeewi askan bi wala Pastef wala ainsi de suite mu jël dogal ni risque à trouble risque de trouble à l'ordre public wala wala wala ainsi de suite ainsi de suite pour mhm. euh, wut modif lay yoo xam ni tey daf ko koy teerale maanaam mars c'est un droit constitutionnel dëgg la suñu constitution moom moo ñu may suñu sarti ndey réew mhm. bis boo demee ba am lu la métti puisque doomu aadama suy téye di téye di téye bu yàggee mën na ko génnee ci anam goo xam ne dafay violent voilà ñu may la opportunité wu nga dem bind kayit goo xam ne da ngay yëgle mhm. à ce que ñu wut ay takk-der yoo xam ne dañ lay encadrer nga dem marche ci jàmm ak salaam génnee li nga xam ne moo nekkoon ci biir xol léegi nag xam nga yàgg naa ko wax man yi gis nga la fii ak nit yi ngi am lu leen metti ñu bëgg ko génnee mënuñu ko génnee bis bu ñu koy génnee mën nañ ko génnee ci beneen anam goo xamante ni si ni euh, ñu bari danañu toog ñu euh, dar seen gémmiñ moo tax man dama gëm ni tey mm. président Macky Sall moom sax moo wóorul nangu tey ay préfet ak i gouverneur di euh, interdire li nga xam ni moom moo di ay marche wala ay rassemblement yoo xam ni tey opposition bi lañ parce que tey bu ñu waxoon tey dëgg li muy def mhm. nii. Mhm. bu ko ko président Wade doon def. Mhm. tey jii du agsi fi mu agsi. dëgg la discours yi ñenn ji di tenir ñu leen di jàpp di tëj ci kaso gi à l'époque nañu dem ci vaar yaa ngi fi gars yi ñu doon tenir discours yu ko gën a garaaw gën ko tàng fuuf. ñu ngi fi woon dañu leen bàyyi woon parce que moment boobu moo ko laajoon en fait. mbir dafay am fu muy toll yaa des moments yoo xamante ni si nii. Euh, dafay am fu muy toll il faut que ngay man di sëgg yenn yi di. tolérer yenn et c'est important euh, tey bu ñu gisee euh, surtout. ci côté kuje gi. ñenn ñu ci bare bare duñ leen tolérer yu bare bare lu ñu wax lu mu néew néew. néew ñu toll fatal ay ni ñu jël la daa ji lay euh, quand même euh, tëj ci kaso gi fexe noo noppee euh, loolu kenn mënu ko comprendre. dans un pays de démocratie moo tax ma ne F24 seen rassemblement bii nii law 21 la n'est-ce pas. waaw tey la lan tey la tey la mercredi wala jeudi gannaaw suba la. ah vendredi incha allah vendredi place de la nation te même sax boo xoolee. parce que ñun ci bari dañuy dem découvrir. Mm-hmm. même bu ñu leen mënta bañ a tere ba ma leen a tere dañ leen ni notifier tardivement. voilà parce que bi passé voilà au lieu que ñu respecté délai bi merci beaucoup am na jour boo xam ni gars nit ñi dem nañu ba fi ñuy monter sonorisation yeeg yooyu noonu ci la ñuy soog wax di leen wax ni. maanaam euh, bàyyi nañ marché bi danañu encadré ko. te loolu mooy point bu ñu defoon rek ci benn restaurant bu nekk euh, la presse loolu du yoon du dëgg du yoon mm. kon euh, vraiment gis nga Ndeya. lu bon bu ko maanaam lu dul yoon su ko ñëpp doon def. du tax mu nekk yoon. lii yoon su ko ñëpp bàyyee du tere itam mu bañ a nekk lii yoon. kon euh, vraiment euh, préfet ak ñi nga xam ni ñoom ñooy gouverneurs yi. nañu bàyyi ak di sàmmonte euh, li nga xam ni prêté woon nañ ko serment muy lan servir askanu Sénégal bu nga xam ni tey lu ñu doon ñoom ñoo leen ko def parce que suñu bàyyi ñoo leen fayal seen jàng suñu impôts yi ñu commencé ko primaire collège euh, lycée ba dem euh, cité euh, pare seen njàng def formation génn war a servir peuple askan boobu noonu boo ko boo leen waree nag dem di servir ñenn loolu ala kulli xaal da nga ko layoo moo tax vraiment bu ñu bañee jafe-jafe am bu ñu bañee ay xët-xët am ñu bàyyi nit ñi heure bu ñu amee lu leen metti ñu dajaloo wax ko génnee ko su ko defee mu am au moins benn benn benn nu ñu ko waxeeti génne li nga xam ne nekkoon ci ñoom euh, nga xamante ni si danañ oyof tuuti en fait. Euh, ñu jàll ci am benn souplesse bi. mais fekk ñu ngi koy téye. ba rek la mën a jur ba rek la mën a indi moo tax sànq ma ni président Macky Sall ci boppam moo warut nangu. Mhm. ñu ñu ñu ñu ñu ñu. ñuy interdire li nga xam ni moom moo di euh, genre genre marché parce que à la xaal lu ci man tam itam moom mooy kilifa réew mi tey te bu ñuy wax duñ ko ci génnee. Euh, voilà bien vrai que ne euh, dañoo dem ba dañoo tàmmal lenn li mooy qu'à chaque fois euh, bu ko jéggi woote wee ñu bëri seen xel ci lan lay dem mooy que ñu bañ koo autoriser mais nag loolu dañoo dem ba ñoom dañu ko gëm loo ba ñu au dañoo dem ba dañ koo loo dañ ko gëm suñu bopp loolu laa mën a wax parce que ñu bëri si ñi nga xam ne boo leen déggee lu ñuy wax mooy que ñoom jàppuñu ne dinañ autoriser mooy boobu les manifestations mais li ci mënti am boobu les manifestations pacifiques pacifique li ñu ci mënti am mooy que euh, ndiki vendredi la waa F24 daal di woote ngir xeex la nga xam ne moom mooy àq ak yelleefu doomu aadama parce que jamono ji la nga xam ne askanu Sénégal mi ngi koy dund ñoom ñu ngi koy tenir en ba tax na pare na ngir daal di euh, koy jooyantal pare na ngir daal di wan au niveau international euh, que ne lii moo xew fii nii Sénégal ginnaaw ak Ousmane Sonko defee ci wàllu concert casserole bi euh, ñoom nag pare na ngir wane la nga xam ne waaye tamit ngir exiger président Macky Sall ngir mu organiser élection yoo xam ne dafay libre transparente ba pare exclusive bàyyi candidat yëpp ñu daal di bokk amul ma Demba amul ma Samba waaye tamit bàyyi ñëpp ñu daal di dem ca yooyu lee jongante ngir ñu mën a xool ana fan ana kan la askanu Sénégal di tànn ngir mu daal di koy uh, jiite ci wàllu démocratie aussi ku ne xam ne Sénégal am na ci benn uh, reculade boo xam ne nemmeeku nañ ko ci dañoo reculer lool lool lool ndax buñ ko xoolee ci ligne rouge bi la Sénégal di daal di nekk te lool noonu ku ne xam ne ne ñun ci wàllu démocratie dañoon ko instauré bu baax a baax dañoon ci liggéey liggéey bu mucc ayib ngir mu ah, ci régime parce que liberté d'expression ah, ñoo xam ne ah, dañu lu leen métti malheureusement duñ am fuñ ko waxee wala buñ ko amee tamit suñ ko waxee yoon daal di leen di teg loxo ndax lan ndax waruñoo wax yi nga xam ne moom moo régime bi moom la di def waaye tamit waruñoo wax la nga xam moo ngi ci prison élection dara yóbbeewu leen ko lu dul wax li nga xam ne moom la askanu Sénégal euh, di dund te lool noonu benn recul euh, la daal di am kon nag moo waral ñoom ñu daal di woote euh, ngir ñu libérer détenu politique maanaam bien vrai ne Euh, président Macky Sall neen détenu amul ñooñu jàpp dañoo def loo xam ne yoon euh, santaane ko moo tax ñu daal di teg la loxo mais am ñoo ne aussi euh, ñenn ñoo xam ne wax nañ yoon santaane ko te pourtant ñu ngi ci mbedd mi di doxi seen ay soxla kon deux poids deux mesures kon ñooñu lee ay détenu politique lañ leen parce que moo waral ñu daal di leen di teg loxo deux poids deux mesures aussi dafa war a jóge li nga xam ne moom mooy fii nii suñu réew di euh, Sénégal l'émission tira sa fin di leen jaajëfal bu baax a baax suñu mbokk internet yi nga xam ne euh, ñu ngi doon ñu euh, taaxelu waaye tamit di leen wax na da leen continuer di like live bi ak di ko partager ak surtout di abonné sur 313 digital Kébé maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw ñu jaajëfalal yow itam